jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi déglu euh, rajo euh, Rewmi FM 97 point 5 ñu leen di jaajëfal bu baax a baax di am mbégteeg kontaante ci mbooleem auditeurs yi ak mbooleem auditrices yi. Euh, mbokk yi samedi bu jot bu euh, ñetti waxtu jotee jàpp euh, ñeenti waxtu maanaam quinze heures jàpp 16 heures ngeen ànd ak seen mbokk Abdou Khadre Seck ci seen émission pencum réew mi Adama Diallo moom moo nekk ci wàllu technique bi. mbokk yi nag tey xam ngeen ni seen émission pencum réew mi dafa daal di am invité boo xamante nag invité marque la Soxna Penda Dieng moom nag honorable député mu nekk nag ci parti bi nga xamante ni moom mooy LD. moom moo jiite LD sax ci département bu Dakar euh, ba pare tamit euh, nekk euh, vice présidente des femmes LD au niveau national soxna réew mi FM maa ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay Abdou Khader Seck maa ngi lay jiital ci nuyoo bi di ci nekk sa réalisateur bi. Euh, di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu auditeurs yi déglu yëpp. Euh, LD ñoo ngi leen di nuyu waa LD ñu baree bari xam naa jamono ji euh, ñoo ngi ñuy déglu nga nuyu sa mbokk yooyu. maa ngi nuyu itam sama camarade du LD yi si Sénégal yëpp ak ci diaspora bi yëpp ndax ñun ñu ngi fu nekk. ci ci ci réew mi. waa ci réew mi ak ci bitim réew. mais waa LD amoon na doole de mais est que ba léegi nii doole jàng fi soxna soxna ba léegi am na doole ndax engagement mooy doole xam nga luy doole. Hmm. du cëfër cëfëri ak coow lu bari. am militant yoo xam ne dañuy déterminé fixé wu toog demuñu dikkuñu transhumé wuñu defuñu dara ñu ngi toog fi ñu toogoon rek. si ci parti bi ci parti bi. waaw mais gis nañ ne LD bu njëkk bëri woon na cëfër cëfër bëri woon nay kàngam mais gis nañ ñi si génn tamit bëri na am na ñu génn ci LD. waaw ba sax seen geneen làng. est-ce que loolu tamit soxna Penda wàññiwut seen doole. waa ñi génn xam nga àdduna day dox. waaw yow mii fi nga nekk nii ak sa vision. xam nga LD am na ñoo xam ne ñii dañ faa toogoon démb ak bërki dem mosuñoo dem fenn. am ñoo xam ne dañoo génn wëndeelu ba seen xol sedd defar seen bopp ba seen xol sedd ñu ñëw nag daal ne léegi nag ñun li ñu bëgg loolu ngeen di def parti bi day génn ci li indi coow li day génn ci benn bokk yaakaar. Mm-hmm. pour gaawantu waxtaan wi rek moo tax ma tëpp loolu yëpp. Mm-hmm. léegi nag ñun àddina day dox ñun benn bokk yaakaar la ñu nekk ci la ñu nekk ndax benn bokk yaakaar dañu jàpp day liggéeyal Sénégal mm-hmm. te gis nañu tam ne benn parti. même parti bi nekk au pouvoir mënatul dem moom kenn. mais benn bokk yaakaar amul démocratie coalition boobu amul démocratie. Ah, yaa ko wax yow xam nga bokkoo ci mënoo xam lu nekk ci biir. am mais dañoo gis. ah gisul leen yéen xam leen neex rek ngeen di gis mais du ngeen gis réalité yi ñun pour ñun gisuñu ñàkk démocratie boobu ndaxte tamit àddina yëpp coalition bu dee ne Benno Bokk Yaakaar nga xam ne ba mu juddoo ba léegi ñëpp ngi ñaan yàlla na dee te boobu ba léegi mi ngi dund. waaw mais soxna Penda li nga xamante ni tey euh, ñi ñuy déglu ak ñu baree bari ci LD xam nañ ne benn Bokk Yaakaar gii ñu gis maanaam li ñuy wax wat taxas féetale genn wet lu ci ëpp tey mën nañoo wax ne Macky sàll mi jiite réew mi jiite coalition benn bokk yaakaar ak partem APR ñoo aakimoo benn bokk yaakaar bañ nañ ko ba comme ni nga ko waxee sànq sax normalement couleur benn bokk yaakaar warutoon a nekk sax couleur APR ndax dangeen a gañeendoo gérer ndoo mais boo demoon assemblée nationale dem ci gouvernement bi dem ci directeur généraux yi foo ci man di dem presque waa APR nga fay fekk loolu moo tax ma ne la presque boo dee xool coalition bi coalition APR la ndax li si bu baax lépp Macky Sall presque jox na ko ñooñam. bu dee affaire couleur couleur yi fi jiitu woon ci carré nu meloon. yan couleur couleur yi booy wax waxu couleur foofu laay njëkke couleur yi fi jiite woon ni ñu meloon couleur parti fi nekkoon waaw bi ci toppaat ni mu meloon bu parti Ablaye Wade bi ci topp kon nu muy war a mel Macky Sall ah kooku du problème ñun loolu amuñu fixation ci loolu ay couleurs yooyu amuñu ci fixation te tamit li nga wax ne euh, yi dafa aaki moo lépp ñun gisuñu loolu parce que tamit bu fekkente ne da ngeen ànd ngeen nekk euh, fukk ngeen nekk fukki nit juróom-ñaar yi bokk fu ñu nekk buñ defalee juróom-ñaar day gaaw a fes par rapport buñ defalee ñett yi des waaye ñun plaindre ñu xam nga nag kuy créer parti politique da ngay ñaan yàlla exercer pouvoir. Ah. loolu ngay ñaan yàlla. Ah. mais boo demee ba xam ne mënoo exercer pouvoir nag da ngay ànd ak ñiy exercer pouvoir bu dee réew mi moo la tax a jóg bu dee réew mi nga bëgg liggéeyal. waaw mais bu du du du sa intérêt personnel. waaw mais xam nga soxna si du question intérêt personnel. mais LD bëri na euh, ay cadres yoo xamante ni tey war nañoo mënoon a am ay nomination yéen ñi nga xam ne yéen ànd ak président Macky Sall peut-être tey euh, seen sincérité ak seen engagement ak seen détermination mën na leen a bañ a permettre ngeen di ko wax mais képp koo xamante ni tey yaa ngi suivre xam nga ne coalition Benno Bokk Yaakaar président Macky Sall lu man di am dafay sédd ñi nga xamante ni ay jege ñaaleem lañ di jël ay nitam ba doyal doog a jël des wi jox ko ñi nga xamante ni ñooy ay alliéem loolu te loolu du ab ànd li ma wax ni nag peut-être tey mën na la bañ a engagé mën nga ko bañ a dëggal mais man loolu laa njort te ñu bari tamit loolu lañ njort. xam nga ñun ànd ak Macky Sall ay poste ministre taxul ñu ànd ak moom wala poste député gis nga man bi ma génnee douzième législature investir ruñ ma ci laa gën a campagne ci laa gën a def sama xaalis ci campagne te booba xamoon naa du ma nekk nekkuma sax ci liste yi te ci laa gën def sama alal waa biscuiterie yi ngi may dégg. waa biscuiterie ñu ngi may dégg ndax foofu laay milité ci laa gën a def sama xaalis sama alal ci eh, campagne te booba kenn investir ma pour wax la na ñun LD bi ñuy bi ñuy nekk ci parti politique di ànd coalition ànduñoo coalition pour am ci poste ministre wala poste député wala intérêt personnel ñun tant yaa ngi liggéey pour askanu njariñu askan bi ñu ànd ci. Mm-hmm. kon gis nga ne président Macky Sall fi mu ne nii ma ngi liggéey pour njariñu askan mi ngi liggéey pour njariñu askan bi mi ngi baax maa ngi koy félicité au passage di ko ñaanal gudd d' accord euh, jërëjëf euh, soxna Penda Dieng euh, honorable député moom moo jiite euh, LD euh, ci ci Dakar ñu wéy ci li nga xamante ni mooy waxtaan bi li nga xam ne mooy woppi coronavirus gis nañ bi mu feeñee ci àdduna bi feeñ fii nga xamante ni moom mooy Sénégal ñu gisoon état bu Sénégal wala bala ñu agsi foofu gisoon président Macky Sall woo ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci kujje gi ak société civile beeg ñëpp yow loolu lan mooy ci sa gis-gis. xam nga damay dellu tuuti gannaaw ci corona ñëwam xam nga corona dafa nekk gan goo xam ne gii kenn bëggul lu tudd kenn buggul lu tudd kenn amul amul sant amul ndey amul baay bi muy ñëw nag 2 mars muy egsi Sénégal fekk na président Macky Sall ci vision waajal ko teeru ko bu baax a baax a baax xam nga boo demee ca gannaaw treize étudiants yu Wuhan yi ba nit ñi naan lañ leen jëli waaw waaw dañ leen war indi dañ leen war a nii bu doon doomam du ko def bu leen indi tey jii ñu ngi ci hécatombe kon tey ñooy raw États-Unis mu ne tekk defar ne nag li déclaré nag ne guerre la ñu nekk woo nag sénégal sénégalais yëpp nag toute tendance confondue opposition pouvoir ñëpp toog waxtaan ñu xool nu ñuy traité coronavirus ci loolu lañ nekk ba léegi donc man dama koy sant di ko gërëm di ko ñaanal ci vision boobu mu am noonu. Mhm. ndax mënoon toog di xaar wala mu ne ñu def ko pression mu daal jëliñee couvent yi treize étudiants ku nekk ñoo dem sa kër sa waa kër fekk fa ñaar fukki nit mu wàll leen ñoo ñu génn wàll waa mbedd mi yëf yi day law kon ba tey ñun ñoo ngi ci deegu ñu xamul mhm. fu muy fu muy kiiwee loolu bon loolu la demee d'accord léegi euh, taxawaay bi président Macky Sall amoon gis nañ pour xeex coronavirus bi woowoon nañu baree bari ci kuje gi pour ñu waxtaan ànd bi rafetoon na mais gis nañ ne digganteem ak opposition fi mu nii mën nañu wax sax ne yàqu na xam nga opposition moom tant que Macky Sall gi nekk président ñu duñ ko may jàmm te et puis c'est normal c'est de bonne guerre parce que ñoom tamit fi Macky Sall toog la ñu bëgg lu mu def ñu ne baaxul ñoom bañ leen woowee ñoom ñëpp lan la ñu def ci euh, fond Covid bi lan lañ ci def man ba koy laaj xëy na ma rëcc na ma lan lañ ci def ñoom de euh, bu passé euh, ay wax ak i communiqué waaw gisaaguñ daal ku fi def benn engagement bi boo xamante ni ñoom engagement bi opposition wala wu ñuy pouvoir engagement bi ñu doon am bu ñuy politique bu campagne di joxe ay t-shirt di joxe ay masque taxawaay boobu gisuñu ko ci homme politique yi ñu def ko ci ay gel wala ay masque defuñu ko ci kon kon boog nañ noppi mais gisuñu tamit Macky Sall def ko gisuñu tamit Macky Sall def ko waaye terewul tamit am na ay bonne volonté yu yoo xam ne ñu bëgg seen réew lañu. ñoo xam ne dañoo làmb seen poos mais lii may wax nii Macky Sall ci la bokk bokk ci moom tamit ñi ko def bokkul ci ñi def ñu ko xamante ni dem na séddale ji ay gel ji nàngam soxla muy séddale mais mën na ko génn joxe ko ñu séddale ko mën na génn état waxuma alalu askan wi de. waxuma alalu askan wi mën na génn joxe ko ñu séddale ko te Macky génn na joxe ñu séddale soxlawul ñu koy publier soxla ñu naan président joxe na lii pour lii joxe na nit ñaa ngi joxe ñëpp a ngi joxe ñoom waaw opposition ñooñu nag laa gisul man dégguma tam fu ñu joxee loolu critiquer ak taxaw di sànni ay xeer te mm, loolu. non non soxna Pend euh, euh, opposition bi àndoon nañ ak Macky Sall. mais bi ñu demee ba nga xamante ni gis nañ ne lu jëm ci marché yi ceeb yi euh, am na. gis nañ tamit li nga xamante ni mooy décret président honoraire bi boo dee xool presque lu mel noonu moo leen moo leen moo tàqale wala boole na bokk na ci avant président honoraire bi tàggoon nañu parce que ñoom ba ñu ñëwee wax seen wax ba ñu gis leen ku nekk dugg génn Macky diisoo yow nga génn defoo la nga war a def ci xeexu fond Covid bi la ñu commencé di wax li ñuy wax te loolu man duma ma ci dugg décret boobu man du ma ci dugg parce que maîtriser wu ko. d'accord mais taxawaay bi opposition bi amoon bu njëkk ak léegi gis nañ ne du taxawaay bu nekk benn mais euh, bu njëkk daal demoon nañ ba nga xamante ni day waxu politique dañ ko bàyyi woon nekk ci ñun ñëpp ànd xeex coronavirus gis nañ ne loolu dafa dañ est-ce que nekk na loo xamante ni lu baax la ci réew mi ak yow tey ban conseil moom nga si jox opposition bi ak pouvoir. répété euh, ban question euh, li ñu gis opposition bi dañu gisoon ne ñoom ñëpp àndoon nañu ak président Macky Sall. di xeex coronavirus. gis nañ ne jamono ji dañoo mel ni lu xajaloo est-ce que mënuñu woon a wëy di ànd ba tey ak lan nga jàpp ne moo waroon a nekk taxawaay bi. seen taxawaay kay ma doon ànd teg fële affaire politique ànd ak président de la république son excellence Macky Sall ñu xeex corona te xam ne corona pour ñëpp la Sénégal yëpp la taxaw kenn bëggul mii Sénégal yëpp la faagaagal amul opposition amul pouvoir kenn xamul sax ku muy dal ku nekk mën na laa dal. mën nga cee bañ a dugal sa loxo taxaw fële lem say loxo di seetaan mu dal la wala mu dal ku la jege te boobaa di nga ci wax kon li ñu taxawee du noonu opposition li ñu taxawee du noonu dañu waroon ànd ak président taxaw temm nekk benn nit xeex corona. président Macky Sall dañ ko voté loon ab loi <coughs> d'habilitation mais gis nañ ne soxna Penda yaakaar naa ne yëg nga askan bi jàmbat ka ne dund gi ba léegi nii accès gul ci ñoom lan nga jàpp ne moo waral yeexaay bi. te mën mois gis nga dund bi. Euh, gis nga président Macky Sall xanaa ñëpp gis nañu ceeb beeg suukar si ak diwlin ji ak meew ak pat yi gis nga dund bi du SMS bu ñuy org bu ñuy programme bi ci portable sànni ko mu daal mille personnes ay oto koy yëpp ay nit a koy chargé ay ot camion koy dugal ay nit koy orienté léegi dañu njëkk a commencé ci dëkk yi nga xam ne day gaaw a taw muy zone sud bi foofu la njëkk a commencé maanaam ay bi Oussouye Bignona bi ñu commencé ak ak euh, Afrique euh, orientale maanaam Kédougou nga xam ne day teel a taw donc dëkk yi teel taw la ñuy commencé bi ñu commencé dëkk yi teel a taw ñoo ci dëkk yi nga xam ne yaakaar nañu ne ñoo gën a bëgguma wax ndóol ñoo gën a sonn. Mhm. muy diggu kafrin ak le bassin arachidier bu ñu fa jógee ak Matam bu ñu fa jógee ñu ngi dem feneen dund yaa ngi ñëw man léegi rek sama portable maa ngi gis démb suñu maire. Eh, yónnee ñu yónnee SMS ne kii bi ñëw na mi ngi mairie mi ngi ci mi ngi ci ah, entre les mains des forces de l'ordre waaw mais euh, gis nañ tamit. léegi nag nit ñi dañu yàkkamti nañu xaar ba ba mu jeex te ñëwuñu gisuñu ko li Macky Sall def dañ ci war a sant yàlla ndax li mu leen dund dund bi mu leen jox nii wax dëgg yàlla dañu war ñu baree ngi sant yàlla nag waaye ñu bare ñii ñaxtu ñi yàlla baax na ñiy sant yàlla ñoo ko ëpp. waaw mais soxna si yëf yi nag du yëfu Macky Sall. yëf yi du xaalisu président Macky Sall xaalisu askanu Sénégal la ak ay sénégalais yoo xam ne dañ see participer. waaw jàppale na journalistes yi sax participer nañ xalif général des Mourides xalif général de Tidiane ku ne participer na si. pour mu dem ci askan wi. président Macky Sall man sax participer yow sax participer nga mais dafa yeex lañ wax président Macky Sall sax xam na ne yeex. waaw dafa yeex loolu loolu dafa yeex mais mi ngi ñëw xam nga mu bañoon na am moom boobon waaye comme yéen gis ngeen ko mi ngi ñëw ñu ngi def distribution bi bés bi na ngeen gis ñu ngi bërëb sàngam ñu ngi kii sàngam loolu yéex boobu mën na ànd ak àddina lépp mënul demandoo au même moment sottandoo au même moment quand même nekk. daaw mais sénégalais yi jamono ji boo xoolee trois mois yoo xamante ne liggéeyuñu euh, mbir mi dana xaw a am jafe-jafe. waaw jafe-jafe yi gaa moom loolu moo tax sax moo waral moo waral sax président def li mu def ndax gis na ne confinement bi dafa tax nit ñu bari toog liggéeyuñu waaye tamit euh, moom bàyyi na ñooñu xel moo loolu moo tax sax mu desserré lu baree baree bari ndax ñu baree bari ils sont dans l'informel dañuy liggéey ba deux heures ba dix heures ñu wari seen dépense su kër. Mhm. loolu moo tax sax mu desserré affaire bi waaye terewul nag loolu mu du boobu askan wi dajale nag teg ko ci loxoom nag mu dolli ci nag njënd ñu ñuy jënd euh, séddale ko askan wi ñuy dund vraiment loolu lu may rafetlu la te lu rafetlu la ko mais doon nañ fi wax euh, mille milliare <coughs> yoo xamante ni dana ko génn ci euh, gafak ak nguur gi ak xaalis boo xamante ni askan wi ñoo ko participer mu nekk ay milliare yu milliare yu milliards xaalis boobu tamit askan wi dañuy sàkku ak leeraange yéen waa LD bindoon ngeen ci lu mel noonu ab communiqué pour euh, ngeen di sàkku mbir mi mbir mi leer xanaa nag wel de lu ngeen ànd ak président Macky Sall war ngeen a sàkku mille milliards Sénégalais yi ñu ñu leeral ko. ñun leer na suñu bopp parce que gis nañu fu muy dugg xam nga entreprise yëpp dañoo nërmeelu liggéeyuñu te terewul euh, ñu ngi leen di fay. lu dëgg ñu ngi leen di fay euh, soixante quinze pour cent wu seen salaire loolu fa ngul jógee dañ leen di dimbale hôpitaux yi ñiy faj yi ñuy sol alal ju jeex la ñu ngi leen di ñu ngi koy jënd lu ñuy jënd la ñi ñi am coronavirus ñu leen di faj fayu ñu ñaar fukk fey ñu dara koo koy am rek boo wootee ñoo jël si la fay la te gis nga ni ñu toll te xam nga ne liggéey bu rëy la gis nga hôtel yi ñu dugal gis nga fi dañoo dafa dafa dafa dafa bari yoo xam ne yi moo ci laxasu xaalis bi ñu ngi koy dépensé waaye nit ñoo bëggul xam ñoo bëggul nangu ne ñu ngi koy dépensé waaye xam nga ne mos kenn du jël ay mille milliards di ko détourné loolu xal xal sax danguwu ko ñu ngi koy def ci population yi école yi Euh, protocole sanitaire bi dañ ko respecté école boo nekk boo mënti dem lépp dem na fa lépp mat na maire cinquante deux cinq cent cinquante deux maire yi ci dëkk bi yi ci at yi ci Sénégal ku nekk defar nga sa gox ba nga xam ne bu ñu xale yi ñëwoon foofu dinañ ci exploité beneen beneen ki mais ñu euh, baree baree bare soxna si dañuy wax euh, gestion bi ni nga xamante ni moom la président Macky Sall géré euh, gestion Covid 19 bi dafa bëri ay problème yoo xamante ni daf ci am ndax yow gisoo loolu. man de gisuma ci problème c'est que nag nit ñi fa ñuy wut ay problème mhm. nit ñi ñuy wut ay problème mais man gisuma ci problème parce que ñi ngi liggéey docteur yaa ngi wax xam nga yëf yi dafa commencé ñi warul la wax di wax ñi war a wax noppi. Mhm. léegi nag tendance dafa inversé wu ñi war a wax ñooy wax ñi warta wax noppi nañu. d' accord léegi euh, lan moo tax président Macky bi muy def état d' urgence di tëj école yi di tëj jumaa yi ak euh, jàkk yi tëj transport inter interurbain bi te lépp loo xamante ni jëm na ci rassemblement ay dajaloo Sénégal boobu bëriwutoon ñu am coronavirus ci réew mi euh, lu hmm. jaaxal ñëpp te ñëpp di ko waxtaane mooy président Macky dafa dem ba Sénégal plus de trois mille ñu fi am coronavirus presque quarante et quelques mu daal di yolomal mbir yi comme sii que coronavirus moom dafa jeex ci réew mi loolu lan moo ci sa xalaat. sama xalaat bari na ci parce que corona bi mu commencé président jël ay ay mesures hardies tëj frontières yëpp tëj écoles yi tëj jàkka yi tëj jumaa yi tëj église yi tere rassemblement nee nañu def euh, ay gestes barrières yii la ñuy def. ah nit ñi di ko commencé appliquer ñu dem a dem dem ba si yàgg ñu commencé génn di yuuxu naan dañoo xiif dañoo mar ñu ah ñi ubbi seen i jàkka ubbi seen jàkka ne ñoo tey dañuy ubbi kenn mënu ñoo teree julli ah mu xool ne moom moom day déglu population bi population bi loolu la bëgg mu fekk si leen ci loolu man ni ma jàngatee loolu mooy dafa ne leen la balle est dans votre noonu laa ko jàngate man. Mhm. ah jéem naa leen aar nangu leen aaru. mu ngi noonu kon dafa dafa découragé. découragé wul waaye daf leen delloo bal bi seen camp. léegi nag mooy découragé. du découragé wul yi. mais population bi même soo leen dégloo même soo leen dégloo du caagi ne ñoom seen bëgg-bëgg bu dee yow yow mi président yaa am information yoo xamante ne saw askan amuñu ko yow président yaa yor xaalis bi yow euh, bu la leeree ne askan wi lii ñuy sàkku baaxul si ñoom lan moo tax lan en tant que président. da bëgg mu jël euh, armee ne leen rey leen ñii dóor leen leen ñu génn ci mbedd bi du gis nga li xew ci dëkk bi ku nekk organisé wu génn di yuuxu di taalip na da bëgg président ne leen nag. fekk leen ci li ñu bëgg ñoom ne armée génne leen police tiire leen ci kaw ñëwee loolu du ko def. te ñii loolu la ñu bëgg. mais soxna si. xam nga opposition ñoom bu ñu sañoon rek réew mi tàkk. mais xam nga <laughs> euh, ñaxtu yi fi am. <laughs> Ah. dafa nekkul ñaxtu yoo xam ne ñaxtu yi tax ñuy wax la. Grand Dakar fii ñoo fi taal benn pënë nga fi gis koo fi taal dinaa taal fi benn pënë loolu warut a mën a tiital nguur. ba muy deltu ginnaaw ci ay décision tiitul tiitul waaye tamit day déglu population yi comme que population yi nanguwuñoo toog. confinement bi buggu d'accord yu ci te gis nañ tam ci yeneen dëkk Europe yi tamit confinement bi tànn na fa yolomal nañu nangu ñoo toog nee ñu dañuy liggéey xool gis sa garage yi ña fa nekk di agité wu ñëpp amuñu sax carte grise mais dafa am ñoo xam ne garage la ñuy dunde dundaluñu garage waxuma transporteur yi nga xam ne ay responsable la ñu am seeni oto di liggéey seen liggéey ñooñu déggoo leen ñuy taali pëna wala ñuy xeex boo xoolee ñu doon def manifestation ci gare gare routière yi euh, Kaolack Tamba euh, Mbacké Diourbel Ziguinchor yooyu ñooñu ay xale yu ndaw la ñoo xam ne yi ay irresponsable lañu. mais est-ce que ay irresponsable war naa tax état deltu ginnaaw ci ay décision deltuwul gannaaw de loolu moom du ma ko nangu deltuwul gannaaw dafa déglu population yi encore une fois comme population yi dañu bëgg ah du gis même man bu dul xale yi tamit dégg ay mag di wax naan ñun dañoo war a liggéey parce que dañoo yore ay kër dañoo yore ay njaboot waaw léegi nag mu daal di ne leen nag comme bi dem leen liggéey la mais apprenez à vivre avec le virus loolu du découragé léegi virus bi comme mi ngi fi nit ñi nangu ñoo toog du jël armée xeex ak ñoom di leen rey mu ne leen jàngaleen nag xeex dëkk ak virus bi gan gi kenn bëggul jàngaleen dëkk ak kenn bëggul. d'accord mais euh, soxna Penda li ñu nemmee ko tamit mooy tey euh, tey xam nga. Sénégal am na ñetti weer yoo xamante ni bi fi coronavirus duggee ba léegi tey déglu naa professeur docteur Abdoulaye euh, Bousso nee na bu ñu bàyyandi ko catastrophe mën naa am te jamono ji li ma nemmeeku yow nga nemmeeku ko aadama mi mooy ñu ëpp ci askan wi dañu bàyyeeku ci lu bëree bëri ñenn ñi sax dañ ko tuumaal Macky Sall ndax dañu wax ne moom depuis que mu dégg France Macron wax ne vivre avec le virus mu ñëw wax ko Sénégal mu message boo xamante ni tey Sénégal yi comprendre luñ vivre avec le le virus Sénégal yi des ko comprendre Sénégal yi bàyyeeku ñëpp ñenn ñu jàpp ne Macky Sall moo njëkk a bàyyeeku tey ëllëg lu ci am Macky Sall mooy responsable. Macky Sall kon moo gën a sedd meen yow Macky Sall lu mu jotee ak Sall da bokkuñu France ak Sénégal bokkuñu France dañu discipliné gis nga France bi nee kenn ci mbedd muy wëndeelu. fii nag boo génnee fii rek ñaari tali bii fa ma dëkk nii rek ñëpp a ngi toog ci mbedd mi ñee ngay grand place ñee ngay toog ci suufu euh, pays bi di loterie nationale di loterie ñee ngay football ci mbedd mi mi ngi mel ne dara xewul te kat dañ ko boole sax am na ñoo xam ne ñu masque. Mm-hmm. waaye léegi loolu lañ la ci Macky man Macky mënul lu dul wax ku nekk yaa war aar sa bopp aar ki nga dëkkal aar ñi nga dëkkal waaye lu mu leen mën lan la ci man lan nga bëgg bu def bu doon yow ngay def Macky li mu mën la def la li mu mën génn ay geste barrière def li mu def yëpp couvre-feu ñu ne couvre bi du fi amee mu delloo wàññiwaat ko ñu ne déedéet mu dolliwaat ko léegi sax man su ma tamoon damay dindi couvre-feu bàyyi leen. ba hmm. couvre-feu amee ba léegi dégg nga ko rey nit. dégg nga ko couvre bi dafa baax parce que doo man 9h ba mu nekkee 9h dama sant yàlla su doon man rek couvre bi day continuer parce que dafa dafa dafa regle dëkk bi doo gis kenn taxawaalu ci mbedd mi. mais ñenn ñi dañu jàpp ne euh, lu jëm ci euh, wàllum euh, état d'urgence beeg yooyu ak lajjite la si président Macky Sall wane. ci xeex crise bi. ban lajjite du li may wax a ak nii encore lajjul li li comme li nga commencé question yooyu ba léegi yaa ngi ci position yi nga nekkoon bu ñu commencé ba léegi couvre-feu ak état d'urgence bu bu mu koy def ba mu koy def pour bëgg nit ñi toog la pour daggal con de contamination bi loolu la ko duggee. Mhm. ndax bu couvre fa amee xale yi xam nga sa compagnie ak ñi dañuy dox guddi. tant bu couvre amee kenn du doxi guddi kenn du dem fenn ñëpp dañuy toog seen kër xam nga rester chez vous lañ doon wax léegi dañ naan soyez prudent hmm. xanaa kooku dem ko danga bëgg a wax ne lajjate la du lajjate comme nit ñi nangu bu ñu toog nee nañ bu toogee du ñu lekk dañu liggéey mais nañ jàng vivre ak virus bi mais nañ prudent prudence mooy nañuy respecter gestes barrières yi raxasu gel masque toog distanciation ku amul loo xam ne lii farata la loo xam ne lii mën ngaa bañ a génn nga toog si biir kër parce que ñenn yenn yenn nag nit mooy faj boppam nag de. Mhm. nit mooy faj boppam man de wóor na yàlla du ma génn. Mhm. su dul may génn dem lu jàmp jàmp jàmp fenn laa demoon maa nga toog ndax man personne âgée la te damaa bëgg a dund ba am téeméeri at ak lu topp. d'accord euh, jërëjëf Amine euh, soxna si. Euh, ba tey euh, ñu wax ci li nga xamante ni tey moom mooy euh, transport interurbain bi gis nañ ne barki démb président Macky Sall yoxamal na ko ba nit ñi di mën a dem région ak kenn ku nekk fa nga bëgg dem mesure la boo xamante ni tamit chauffeur yu baree bari transporteurs yi kontaan nañ si ndax yow ànd nga ci mesure boobu. man de daf ma xam nga man daf ma xaw a jaaxal parce que comme que virus bi moom du dox nit ñee koy porté di dox. Mhm. léegi di wax nañu ba ñu ubbi transport interurbain bi ñu boole ko na ay mesures d'accompagnement ndax léegi dañuy wut manifeste. comme avion booy dugg avion booy dugg dañuy dinañ xam ñaata nit ñoo ne ci avion bi ku nekk daañu xam foo jógee foo jëm ak looy dox ak sa numéro téléphone. Hmm. loolu yëpp wax nañ leen ko mais maa ngi dégg barki démb ci benn émission benn waay naan kan mooy jël loolu en charge léegi ñoom dañu bëgg président xëy da jëlee leen en charge loolu. gare routière yi am na ay xale yoo xam ne jàng nañu lu ñu jéem a organiser ñoo ñu defal leen loolu te loolu tamit bu fekkente ne ba tey tamit loolu day gën a lawal feebar bi rek ndax li tax ñu manifeste dañu bëgg bu ñu demee. bu kaar bi teeree fu mu jëm mm-hmm. bu feebar bi amee ñu xam ñan ñoo nekkoon ci kaar bi ak fu ñu jëm ñoo ñu wàcce nañu ba dem seeni kër ba wàll ko seeni dëkkandoo ba yëf yi gën a law yëf yi daal man daal woon ci ñu ubbi transport intérieur man ànduma ci woon ànduma ci woon man mm-hmm. man xam nga lu ma bëggoon sax man bu doon man mën naa dara ci réew mi ñu tëj région yi nga xam ne dañoo am coronavirus ñu ñu fermer leen ba yëf yi la dakk mais moom la Aly Ngouille Ndiaye defoon mais daf ci daw daf ci génnaat daf ci génn parce nit ñee ko nanguwul population yi tamit dañoo doole itam population yi tamit dooleen noot. mais bi mu taxawee dañuy région de xam nga dafa am ñoo xam ne xamuñu te bëgguñoo xam gis na man Dakar gii ma dëkk su ma sañoon dara dañ koy tëj Cap Vert la ñu naan kàpp tëj ndax Dakar moo yore fi mu nekk épicentre feebar bi te li ko waral mooy dem ak dikk bi gis nga keroog mooy wax la benn anecdote sama benn nit daf ma woo ne ma dimbali ma nee ma paas dama bëgg a ñëw Dakar waaye léegi gaañ ñi au lieu de vingt mille trente mille ngay fay. man ne ko foo nekk bay fay trent mu ne ma Touba man ne ko man su ñaar fukk du ma la ko yónnee yéen kay yéen a sonal nit ñi yéen a indi feebar bi léegi dañ daan dem te armeel ya xaar corbillard yi indi néew yi ñu waxaale ak ñooñu daal dugg ñëw et puis Dakar moo yore feebar bi léegi Dakar moom bu ko tëjoon buñ ko ne woon ràpp tëj nii. Mhm. géej gi rek des si surveiller euh, frontière maritime bi ak. ak fii nga xam ne neex naa surveiller kon. Mhm. kenn ñu am jàmm kon léegi chaîne bi mais kon yow fi mu da nga jàpp dana a day gën a yokk. day gën a yokk. day gën a yokk professeur Seydi wax na ko bu yàgg te Seydi la mu waxoon dara du ci randu sa wax na ko eh, docteur sa wax na ko sax tey tey déglu naa ko. Mhm. day gën a yokk fi mu nekk nii am na foo xam ne bu fa eggee Seydi nee woon na am na foo xam ne bu ñu fa eggee. ñoom duñ ci mën a dara catastrophe lay doon. Mhm. ñu ne dañuy sant yàlla parce que gis nañu ne yëf yi. Euh, d' accord ñi tas bari nañu. Mhm. mais day gën di yokk bari nañu mais ñiy wér tamit bari nañu. waaw ñi wér tay bëri na mais démb rek gis nañ trente cas communautaire. waaw waaw cas communautaire yoo xam ne kenn xamul fu ñu jógee ak quatre cas importé tey. Mhm. quatre cas quatre cas importé. yoo xam ne mais xam nga euh, mbokk yi ñu fàttali yéen a ngi déglu Rewmi FM seen émission pencum réew mi ñu invité honorable député Soxna Penda Dieng mu bokk ci euh, LD. Euh, Ligue démocratique jiite LD ci département bu Dakar léegi xam nga dañoo ubbi transport interurbain bi xam nañ ne Sénégal boo xoolee dakaar moo jël paie épicentre bi mais Touba moom moo ci topp léegi gis nañ ñaari ville yooyu Dakar ak Touba mooy fi ëpp trafic ci Sénégal maanaam dem beeg dikk bi soo xoolee. diggante Touba ak Dakar la ëppee. léegi ñaari ville yooyu buñ ko ubbee ñuy mën a dem man a xam nga Dakar ñi fi xëy di dem Touba kenn xamul nu mu toll. Hmm. ñi jóge Touba di fi ñëw tamit kenn xamul nu mu toll. loolu tamit est-ce que mënut a indi problème bi ci ñaari ville yooyu. foofu lay jógee. parce que tamit nit ñi ñoo war a jël conscience xam ne feebar bi épargné wul kenn te feebar bi neen nañu kenn mënu koo faj xamu nu ñu def sax ñiy wér di wér. waaye ak chloroquine bi waaye daal mu ngi noonu daal man daal ba tey chloroquine ak yooyu daal moom mu bañ la dal nit daal laay ñaan yàlla léegi dakaar ak Touba bu ñu leen encercler woon tëj leen ak Thiès. Mhm. bu ñu leen encercler woon léegi feebar bi jeex. mais lan courage boobu est que ñi ñu jiite am nañ ko. Ah, man de am naa ko man de su ma jiitaloon su ma su ma tekki woon dara ci réew mi. Mhm. loolu laay def. waaw léegi yow euh, dañu gis tamit euh, président Macky Sall ndax ñu bari tey dañu gis ne moom ñaari baan ñett mu daw arrière reculer day jël ay dogal ndax gis nañu fi dafa am ñu fi manifester woon <clears throat> ne ajuma danañ julli tàmbalee yëngal président Macky Sall waat jumaa yi ak ak jàkk yi. ñu gis jàngalekat yi biñ ne dañuy jàngale deux jàngalekat yi ne benn enseignant bu amee corona rek dañuy tëj école yi ñu gis a Sall dawaan na deltu ginnaaw ci loolu lu jëm ci transport interurbain bi ñu gis ne moins de soixante douze heures ay ndaw ñoo xamante ni amuñu sax vingt cinq ans di manifester wu mu dawaat ci daw deuxième ubbi transport interurbain bi woyofal mbir yi ci mbir moo xamante ni catastrophe mën naa am tej ñi ko doon def minorité lañ est-ce que loolu tey du du du du néew dooleeg euh, nguur gi. gis nga président Macky Sall mooy nit ki nga xam ne moo gën a am information ci Sénégal li mu xam kenn xamu ko li mu yëg kenn yëgu ko gis nga jàngalekat yi jàpp nañu ba ñu dem man de tëdd naa ba pare door a yëg na arrêté nañu ko ci diggante bi léegi moom bu ko yëgee lu muy def léegi euh, quinze enseignants yooyu jëmoon Ziguinchor bu ñu eggoon xëy xale yi ñëw jàng si loolu lu muy mel classe maître ba corona élève bu wàcc yóbbu sa kër seen waa kër yóbbu ci mbedd mi mbedd mi tasaare loolu lu muy mel Macky Sall moo la gën a am info li mu xam ci réew mi ak li mu ciy yëg moo koy njëkk a yëg lu fi xew moom moo koy njëkk yëg moom man de damay saluer boobu courage moom loolu mu def noonu arrêté enseigne euh, école yi daf ko arrêté wu ko daf ko reporté xam nga nee dafa dellu gannaaw mm-hmm. mais daf ko reporté pour que ñaa ministre jawri ñi nga xam ne ñoo ŋànk njàng meeg njàngale mu kaw meeg njàngale mu suuf meeg bu diggu doom bi ñu mën a waxtaan xool nan la ñuy defaat pour ubbi école yi. léegi la moo tax njëkkee ko woon. ah lan moo tax njëkkee ko woon. bu njëkkee lan. maanaam jël ay matukaayam avant le deux. booba yëgul woon ne corona am na ay maîtres corona looloo tax booba yëgu ko woon après lu ko yëg bi ñu déparé ba jàngale ko tasaaro ba ñëpp dem la ko yëg te duñ yemul foofu xam nga am na Kaffrine am na kaa Kaffrine. Mhm. am na kaa euh, ngin ngi new xaw ma am na kaa yu bari. yoo mhm. xam ne ay benn benn yu dem. Mhm. boobu bi muy def loolu yëgu ko ko woon bi mu ko yëgee la ko bi mu yëgee nag am na quinze étudiants quinze jàngalekat yu jëm Ziguinchor te ñu bu ñu demoon Ziguinchor mën naa am ñu jëm ci département àll bi ci dëkk yi la ko arrêté. d'accord léegi euh, soxna Penda xam nga jàngalekat yi euh, dañuy dund ci askan bi lañ nekk ndax am na loo xamante ni mbir moo gis tamit euh, lu cohérent daf ci daf ciy baax tey jàngalekat yi même ñu commencé woon jàng bu buñ ne woon tey le quinze bi di ñëw exemple la ñuy la ñuy ubbiwaat école yi mais buñ ubbiwaatee école yi dox lu mat dix jours. ñu gis ne jàngalekat te am na jàngalekat yu am coronavirus dañuy tëjaat école yi. ah man de ñaanuma ko yàlla man nag jàngalekat laa su ma soon jàngalekat dara du ko jot. non xam nga jàngalekat. Ah, dara du ko jot. waaw dama xam nga jàngalekat yi soo gisoon tey par exemple tey médecin yi bëri nay ay médecin yoo xamante ni ñoo ëpp ja ñi ñi am ñi nekk médecin te am coronavirus ñoo ëpp le ñoo ëpp jàng jàngkat yi jàngalekat yi enseignants yi léegi tey. lan moo tax ñu ne jàngalekat yi am nañ coronavirus rek ñu ajaan jàng mi lan moo tax ñi am coronavirus demu ñu faj leen ñi amul coronavirus dem jàngale ji gis nga médecin yooyu ngay wax ne ñoo ëpp jàng jàngalekat yi ci loxo jàngalekat yi lañ jaar jàngalekat yu ndaw yi ci lañ jaar ba nekk li ñu nekk ñu leen ñu leen naw la ñu nag non li ma wax mooy gis daxaar ba pa docteur yooyu ñu naw jàngalekat yi la ñu te jàngalekat yooyu bu ñu demee bu ñu gisee ne kii xëy na ba bu ñu gisee ne kii am na coronavirus Mhm. ñu bañ a egg ci loolu mën na am ñu faj leen ñu génne ñu dellu siwaat mën nañu dellu siwaat ci kii bi bu ñu bu ñu ubbee école gis ne am na enseignant yu am corona ba léegi ñu dellu siwaat ci position bi jëloon rek léegi lan lan moo tax enseignant yooyu noonu mënuñ leen ñoom am nañ corona ñu dem di leen faj ñi amul corona bi wéy dem di jàngale ji waaw ñi amul corona kenn xamul ñan ñoo am ak ñoo am parce que xam corona mën nga ko am sax du feeñ ci yow mhm. mooy kii asymptomatique yooyu am na mhm. ñoo xam ne dañ koy am mais kenn du ko yëg ñoom ci seen bopp sax duñu yëg nañu feebar léegi loolu moo tax ma ne la kon lan mooy njariñu reporté waat ko ndax yow nee nga mën nañ koo am te doo ko yëg léegi bu ñu ne waat jàng dem leen jàngale ji comme par exemple le yi dem ak élèves yi dem ci école yi kan moo mën a wax ne ñooñu am nañ coronavirus loolu amuñ coronavirus léegi loolu comme kenn mënu ko wax nag léegi ñu ne tekk rek bay ndox mi teey ba ba ba pënd bi wuri ñu xam ñan ñoo am corona ak ñan ñoo ak kañ la ñu ubbi loolu yëpp président mi ngi liggéey ak ñi nga xam ne ñoo yore ñaar man d'accord ma ci. d'accord nga ci le deux bi. d'accord nga ci. d'accord ma ci woon lu tax d'accord ci woon. le deux bi dafa dafa jàmpoon te man euh, waxuma ne xaw ma woon sax ne booba am na ñu am corona mais booba dama xam ne xale yi nga xam ne ñu ci gën a ndaw ñu ngi CM2 xam nga classe d'examen yi la ñu ciblé woon. Mhm. ñu ngi CM2 dama xam ne xale xamul moytu. dëgg la gaa protocole sanitaire yëpp respecté woon nañ ko fépp école yëpp defar woon nañu désinfecté woon nañu waaye dalul woon xelu jaboot daal. waa mais tamit bu terewul tamit dama ne sama waa kër da ngeen di jàngi da ngeen di xëy jàngi ci guddi gi laa yëg ne kii na ñu yeewu di ma ko wax man de ci guddi gi laa ko yëg voilà. est-ce que est-ce que mënuñu wax ñeneen ñu jàng ba mu des ñiy def CM2. ndax xam nga ñiy def CM2 na ñoo war a jàngi ak ñi def troisième ak ñi def terminal parce que ñoom dañoo examen mais tam ba léegi mën nañu waxtaan ci njàngale mi rek parce que xale yi bee ko octobre ba mars ku ci nekk xam nañu ba ban niveau nga am man su doon man octobre mars xam nañu ban niveau nga am dañ leen di mën nañu xool lu ñu leen di yóbboo sixième. Mhm. wala ñu sélectionné école bu nekk sélectionné sa cinq premiers élèves yi wala sa dix premiers ça dépend nga yóbbu leen ñu passé ainsi de suite. Mhm. loolu mën na nekk. d'accord. jërëjëf euh, soxna Penda euh, yow yaa jiite euh, parti bii di LD fi nga xamante ni moom mooy ci département bu Dakar sànq yaa ngi ko doon wax muy sénégalais yi nga xamante ni tey ñoom ñoo nekkoon fële ca Chine te ñu te ñu bëggoon a ñëw ci réew mi président Macky Sall waxoon ne ma ngi xaar mais li ñu nemmee ko tamit mooy dafa bëri ay sénégalais yoo xamante ni ñoo ngi bitim réew mais tey la ñu gën a am tey la ñu gën a am ay jafe ba nga xamante ñoom sax dañu waxoon ko fa faatu fa lañ lay denc ba mu yàgg état bi. deltuwaat si deltuwaat si ginnaaw ñu leen di indi fii nga xamante ni moom mooy ci réew mi mais bi ñu leen indee fii ci réew mi pour denc pour denc leen fii si biir réew mi gis nañ ñoo xam ne dañuy manifester wu ngir ba ñu fay denc ay néew yow en tan que euh, yaay lan lan moo si xalaat en tant que sénégalais ñaawlu ko rek ñaaw rafetlu ma ko mooy néew yi ñu indi woon euh, Malika ak jàmm gën ak jàmm gën vraiment loolu lu ñaaw la parce que ñun ñoo doon jooy ñoo doon jooy ngir ñu andil ñu néew yi nekk Europe waaw mais ñu defar ko ba indi ko di ko suul dootul mënatul wàlle parce que ñu koy suul jël nañ seen disposition yoo xam ne yi buñ ko suulee ba defar liñ ciy war ba pare mënatul euh, virus mënatul génn mhm. loolu moom lu may ñaawlu la vraiment loolu moom lu may rëcc loolu rafetlu ma ko te kenn rafetlu ko mais Sénégal aussi ñoo wax ne Sénégal aussi bi bi président waxee ne ku fa faatu fa Sénégal yu bari tamit rafetlu woon rafetlu wuñu xam nga néew dañ koy respecté mhm. ñu dencoon leen foofu moo gënoon parce que tamit wàññiwul dara. ay jullit ah yow ñu denc leen bitim réew moom nga loolu mooy sa xalaat. mais mën na nekk parce que tamit buñ leen indee fii gis nga ñu indi leen jëlee fa ñu indi leen fii benn la parce que ku deekee dootul wàlle te moom. mais du question kenn ku nekk fa dal sam xel. waaw boo xam nga ku nekk da bëgg sa nga indi ko teg ko fi nga bëgg. Mhm. naan kii lañ suul sama diw di ko di ko ñaanal mhm. te ñaan gi boo ñaanee fépp fu mu nekkoon gannaaw si sax dina ci jot mhm. waaye nag loolu moom li xale yi def noonu moom ca jàmm gën a kii moom rafetlu ma ko moom d'accord euh, soxna si euh, ñu daal di euh, jeexal ci benn ponk jëm ci coronavirus dikk ci seen parti bii di LD ak seen taxawaay bi nga xamante ni amee ngeen ko sa kàdd gu mujj ci mbiru coronavirus ci laaj yi mooy dañu gis ne wopp ji ma ngi gën di law ci euh, ci Sénégal ci li nga xamante ni moom la moom la médecin yi wax mais li ñu nemmee ko tamit mooy ci askan wi depuis que mbir mi commencé ba léegi ñenn ñi dañoo gëmul ne coronavirus am na. Hmm. beneen bi tamit xibaar yi nga xamante ni tey ñi ñu jiite ñoo ngi koy jox ñenn ñi dañoo jàpp ne du xibaar yu wér ndax gis nañ ñoo xamante ni dañuy faatu waa ministère bi ne Covid 19 moo leen rey seen i mbokk génn dem ci presse bi na leen Covid 19 reyuñu. gis nañ ay audio ñoo xamante ni tey dañuy wax ne dañu leen a fay xaalis mu nekk loo xamante ni dafa pëccëxoo ci xelu askan wi euh, te man ma xam ne am na ñoo xamante ni tey tey professeur Moussa Seydi wax na ko ñenn ñi bu ñu feebaree du ñu dem hôpital. Mm-hmm. <coughs> yow lan moo ci sa xalaat ci loolu ak lan moo waral loolu est-ce que du faayu état bi aussi. xam nga ñi naan feebar bi amul ca commencement ba. laa dégg ay di naan feebar bi amul ma ne leen waaye yéen xanaa seen kër yi amul télévision gisu leen àddina bi ñii dee àddina bi ñun yàlla bu ñu egg foofu yàlla sax di du ñu teg yenn yi ñun yàgg yaakaar naa ne Sénégal la xew bitim réew ak yeneen di dëkk yàlla du ko fi indi ñu bari dañoo feebar bi amul ñee naan politique la mais loolu nan la mën a nekk politique politique pour lan politique bay rey ay nit xam nga li nga xamante dañuy naan Euh, dañuy gonfler chiffres yi. Mhm. Euh, lañ naan euh, dee par exemple cinquante personne dee ñu ne deux personnes a dee dañuy dañuy fa dañuy wax noonu rek dañuy tappale dañuy kii dañuy aar dalal nit ñi rek. Mhm. ñooñu mooy ñi nga xam ne xamuñu sax li li géej gi riir parce que gis nga man am na sama rakk boo xam ne bii day faral di dem armeel yi. Mhm. nee na bu ñuy suul nit ku am corona famille yam sax duñ ko jege ñeenti nit ñoo koy suul. mu bu borom blouse blanche yi ñoo koy defar denc ko ñu dem si ñu tasaaroo nit ñi dem seen yoon donc ñu naan amul dañu xamul li ñuy wax. mais dafa am ñoo xam ne dañuy wax ne tey euh, seen mbokk jabet la amoon wala insuffisant rénal. ñuy wax loolu tam dañu ragal rek ku leen stigmatiser xam nga boo amee mbokk mu dee ñu ne corona ko rey yow boo doo ko nangu parce que danga naan su ma nee corona ko rey man mi nekkoon mbokkam am naa corona kon nit ñi dañ may daw. stigmatisation boobu nag leen nit ñi war a xam ne feebar corona du feebaru gàcce mais am na ñoo xamante ne dañ leen di daw ak di leen joxoñ ak di leen di leen moytu looloo tax ñu wax waaw mais am na ñoo xam ne dañoo feebar bi ne corona moo leen rey mais teewul taxul état bi euh, confiné wala mu quarantaine famille boobu loolu tamit dafay tee xelu askan wi aussi ah, am na ñu ñuy quarantaine de xëy na danga dul yëg rek waaye am na ñu ñuy quarantaine ndax li quarantaine jarul tamit jël auto police teg fa ne leen taxaw leen fi bu kenn léegi soxna si yow en tant que politique Euh, du ñuy politique ñëpp aussi mais tey par exemple tey responsabilité bi ñenn ñi dañuy wax ne suñu way politique yi la ñoo ma wax askan wi loo xamante ni tey day safaanoo ak la nga xamante ni mooy dëgg xam nga loolu ñu naan politicien du wax du politicien mooy ko du wax dëgg man loolu laa comprendre man de parti ma bokk loolu amu fa. Mhm. politicien waxam jorto compté man xaw ma loolu. aw ma boobu formation te 74 ba léegi maa ngi ci fi ma nekk mais xaw ma loolu mais xamadu si te tamit yow yow yow yaa ngi wax ni personnellement wala seen part waaw xaaral rek ma wax personnellement LD ak parti yu bari yu mel ne LD xamuñu loolu xëy na tamit même parti yi nga foog ne sax dañuy wax lu dul def am na ñoo xam ne ñii lu ñu wax dañ koy def am na ñoo xam ne seen der seen nature la li ñuy wax dañ koy def ñi nga xam ne li ñuy wax duñ ko def loolu nekk ci politicien am na fu ne. am na am na ci population yi ñoo xam ne ñu lu ñu wax sànni. mais xam nga ñooñu. Mm-hmm. amuñu jiite kenn mais ku nañ kenn kenn nag jiite nañ seen ay ko melee sa kër sa waa kër loolu la ñuy yaroo loolu la ñuy màggee. waaw mais ku mel mi tey par exemple tey bu yàggee wax askan wi loo xamante ni tey bu ñu demee ba sa cëppaandaw ga duñ ko gis cadre figure bu mel noonu laay wax ndax yow xam nga ne yow soxna Penda mii ñi lay déglu xam nga ne Macky Sall wax na fi ay wax ba tàyyi dama la jox exemple ndax moo jamono ji moo jiite réew mi même avant moom ay njiitu réew wax fi loo xamante ni lu leer nañ lay doon askan wi di la dégg nga jekk-jekk génnaat si loolu boo demee ba tàmmal ko saw askan di nga dem ba di nga leen wax dëgg sax même bu dee lu baax la sax dañuy dem ba dañuy jàpp ne na nga leen yàggee nax la lu mel noonu la. kon da nga bëgg a wax ne corona bii ñuy wax ni du dëgg. non da même man naa la ah. na. nga leen a xalaat ne lii du dëgg. xam a mooy dafa am loo xamante ne faay bii faay bii am ci coronavirus bi ak ñàkk gëm wax ji nga xamante ni tey moom la nguur gi di wax ak ñi ñu ko dénk dafa nekk loo xamante ni du ren du daaw du daaw jéeg du si nguur gi Sénégal dafa am noo xamante dañoo dem ba way politique yi boo dee xool dafa am bët bu leen askan bi xoole am yéen tamit ñenn si yéen lu ngeen tàmmal askan wi tàmmal askan wi wax joo xamante ni tey bu ñu demee ba sa cëppaandaw ga wax jooju day randu dama ne loolu soo ko tàmmalee saw askan bu ëllëgee mën ngaa wax loo xamante ni sax seen njariñ lay doon mais dañ ko dut gëm cas de boobu laa lay waxee ndax sa doom boo ne ko su ma génnee ñëw indi la velo nga génnaan na ko su ma ñëw indi la vélo ñetteel bu boo ko waxee amaana même boo indee vélo sax du desi doon génne sama doom su ma ko nee su ma génnee indi la vélo ma génne indi ma vélo mën naa am dama jaarul banque wala ma dem banque mu xat ma ne ko naa xaar ba beneen yoon loolu loolu du du wax du dañ. vélo baa ngi saba xel te bis ma jekkee naa ko def loolu wàññiwul dara loolu du ay tappale du ay fen dëgg la. <laughs> d'accord mais li ñu gis daal moom soxna si mooy. état yéen a bëgg a gis yéen ñii journaliste yéen a ko bëgg a gis loolu ak waa opposition ñoo bëgg a gis loolu. ñoo bëgg gis loo xam ne lii ñoo gëm ne gisuma jant bi même boo leen doon saxal suukar sax ñu ne ñu ne kaani la. loolu la moom fi lañ ko fekk. d' accord léegi stigmatisation bi am ci famille bi euh, nga xamante ni yow euh, fi nga dëkk tey euh, koo jege yoon kër bu amee coronavirus nga gis ñu koy teggi di ko daw loolu yow lan nga si. xalaat ak lan ban conseil nga si joxe. man loolu duma ko def te loolu damay damay wax nit ñi ñu bàyyi ko stigmatiser nit baaxul. nit am corona wala mu hospitalisé ñu koy ñu quarantaine ko mu génn ngeen di ko berek di ko joxoñ di ko kii loolu ñàkk xam dara rek la. waaye tamit damay wax askan wi ne loolu euh, corona du feebaru gàcce bu doon feebaru gàcce du daal euh, kilifa yu mag yi du feebaru gàcce kenn wutiwu ko kenn teg ko sabab te kenn xamul fu mu la toll kon ku ci nekk boo dëkkee ku ko am wala nga dëkk ku ko amoon danga nga koy bu ko beddi d'accord ndax boo ko beddee day yokk feebaram d'accord te dana tax loolu dina tax ñi nga xam ne dañu am corona sax dañ ko nëbb di nga gis ku tëdd guddi bu am température am put guy metti muy saxat waaye mu ne su ma ne damaa damay dem hôpital ñu ne damaa corona loolu day gën a. gën a feebar. d'accord mais mën na gën a yokk feebar mais am na ñoo xamante ni tamit bu seen bopp yi metti dañ naan bu seen bopp yi metti bu demee dañ leen di téye. waaw bu buñ la téyee fekk yow docteur yi lay téye dañ laa xam dañoo xam li ñuy def buñ la téyee bu dee amoo ko ñu bàyyi la nga ñibbi boo ko amee ñu faj la loolu kay moo gën nga toog sa kër di ko nëbb ndax bañ rek ëllëg ñu lay stigmatiser nga ne lu suba du ko wax naa noppi loolu baaxul loolu day gën a lawal feebar bi waaw dañu gis tamit euh, corona dafa commencé rek président Macky Sall mel lu ku sol robbu avocat réew yu bari ci Afrique di sàkku di ñaan di wax Macky Sall fi ni wax ñaari baat te ñetteel ba waxul nañ ñu jéggal bor yi dafa mel ni Macky Sall mënu ko moom Badou dafa bëgg a ci coronavirus ngir ñu baal làqatuwul fenn dafa bëgg ñu bàyyil Afrique yëpp seen bor yi ñu amee ndax fii mu nekk nii fii mu nekk nii corona bi sa waral ndax gis nañu économie gis nga corona bii bala ñoo gis sax ay ay ay ay désastre yi bu def mu paase li mu fiy yàq bala ñu koo gis mu paase ndax fi mu nekk nii ba léegi nit ñaa ngi am seen jàmm waaye économie bi dina nërmeelu te bu économie bi nërmeelu ñëpp a koy yëkk Sénégal africain yëpp koy yëg loolu moo tax mu bëgg. ñu bàyyi lan moo fi lan moo fi nërmeelu. lu fi dul nërmeelu. fii ban problème moo fi am lan moo fi nërmeelu. dama ne la bu après e corona. waaw économie yi dina nërmeelu ci pays africains yi loolu laa wax. waaw léegi loolu moom lan moo fi nar lan moo koy nërmeel. ah ni ñee doon liggéey ni ñuy liggéey di ba pare tamit dafa situation bi ñu nekk nii nañ ñaan yàlla rek mu jàll ak jàmm. Hmm. ñëpp am ci jàmm waaye fi mu nekk nii. xam nga boo gisee may wax loolu dama bëgg a ñaax xale yi xam naa question bu posé woo ko waaye dafa ñëw sama xel ñi nga xam ne yaakaar nañu bu ñu demulee Europe du ñu tekki. Mhm. li may wax président autorité étatique yi ñu jéem a gën a suñu dëkk pour fixer xale yi ñu toog. Mhm. toog ba ba gëm seen bopp ku ci nekk ñu fexe ba nga am sa benn entreprise booy yëngatu loo ci am mu doy la. Mhm. loolu mooy dëgg. parce que euh, état yi ñuy yaakaar ni daañu jël daanu nërmeelu nërmeelu yoo xam ne dootuñu tal étranger. buy ñëw di liggéey ndax ñoom seen bopp du ñu xamante du ñu def seen chômeurs ak seen ñi ñu yor. d'accord mais soxna si euh, xam nga li ma la doon wax sànq ne la président Macky Sall euh, ñoom sax sos nañ benn kuréel ñu bokk ci ay euh, syndicat ñu bare bari kuréel boo xamante ni li ko tax a jóg mooy fas yéene ñu baal africain yi seen bor yi mais Sénégal boo xoolee day mel ni Sénégal amul problème ndax tey la président Macky Sall mën a def ay nomination tey la mën a def ay décret yoo xamante ni tey ñenn ñi mën nañ koo jàppee sax saax saaxee alalu askan wi mille milliards mënagoo ñoo wax ni lii lañ si def ndax sànq yaa ngi doon wax entreprise yi entreprise privée yi ma jox la entreprise privée yi président Macky Sall déclaration ba mu njëkkoon a def wax na leen da leen di jàppale jàppale gi weesuwul garanti leen banque. lool lool loolu baax na boo amee ku la garanti banque kay baax na man mii su ma amoon ku ma garanti banque ma lef loolu di jàppale jàppale dëgg la. d'accord léegi après coronavirus lan lañ ci mën a jàngee ci Sénégal. après coronavirus li ma ci mën a jàngee mooy ñu changement de comportement dina am ñu man ma njëkkee dem Màkka 1990 dama gis bu ñuy jël kaar sous région bi ñëpp dañuy rang mais ñun dañuy buuxante di buuxante di buuxante kenn dugg kenn du génn ba ku nekk ñaqatooy xeb ba ku nekk sa kaala réer te gis naa léegi ne ak corona bi nit ñi dañuy sore distanciation day am. Euh, même arrêt car sax da ngay gis ku taxaw keneen ki dañoo taxaw fu sori donc ñoo xam ne ordre boobu dina am jo dinañ fi jógee tamit gën a set parce que nit ñi dañuy yaakaar ne sax li mu indi corona ba ñuy raxasu ak a fu ñu toll loolu habitude bu baax lay doon dinañ fi jógee tamit jàng toog suñuy kër parce que léegi nit ñi wàññi nañu dox. jàng toog kay mënuñoo jàng toog ñun 3 mois kese ñu génn ci mbedd mi. ah waaw yéenay génn waaye ñëpp ñëpp génnuñu yéenay génn waaye ñëpp génnuñu dinañ te doxee tamit man bu doon sama sago wàññi xew yi surtout. xew yi ñu wàññi ko. ah corona bi gis nañ ne xew yi bëree bari wàññi ko na. ah wàññeeku na moom. waaw loolu moom am na si euh, am na si solo léegi lan lañ si mën a jàngee suñu wàllum euh, santé wér-gu-yaram ndax gis nañ ne professeur Seydi sax wax na ko ba mu demee Ziguinchor mu metti Abdoulaye Diouf Sarr metti waa metti Macky Sall metti gouvernement bi yëpp ndax dafa dem Ziguinchor wax leen na leen fii dara amu fi loof moo fi am ñàkk jumtukaay mu naqari Abdoulaye Diouf Sarr loolu tamit est-ce que mënu jàngee que ne ñun war nañoo jël suñu matukaay. ci sunu wàllum wér-gi-yaram ndax boo demoon ba Tamba boo fa doon def autopsie Tamba sax dakaar ngay defee autopsie. li ma li ma ci jàng tamit mooy dama parewuloon nga dagg ma bu ñu paree ci lii nañu jël ci budget bi lu am maanaa. Mhm. defar ay hôpitaux yu mag a mag mag yu mën ak accueillir yu bari ak ay jumtukaay yu moderne. Mhm. pour que bu ëllëgee yu mel nii ban ñoo bett. Mhm. ñaanuma ko yàlla mais gis nga tey ñu ngi yëkk ci hôtel yeeg ci kër yi. mais loolu faay la. ah waaw loolu bañ ko prévoir woon nañu woon lii Macky Sall kañ la fi nekk président. yàggul nekk président ba ñu amee indépendance ba léegi 60 ba léegi. léegi ah, léegi léegi da waroon a fekk ñoom am ay hôpitaux yu moderne yoo xam ne nit ñi dañuy jógee fu nekk di fi faju si ba xam ne Sénégal yi bu feebar uh-huh. am foo fajoo doo naan maa ngi dem Maroc ndax waa Maroc fii la ñuy jànge éducation bi nag lan lañ si jànge éducation bi noonu éducation bi tamit ñu dina ñu xool ba nga xamante ne dindi fi mbaar yi abri provisoire man xale bu nekk ci abri provisoire daan naa ko wax moo a gën a xale bu nekk ci mbedd mi football am na ab zone yoo xam ne yi amul classe ñu dafa ay mbaar xale di jàng moo ma gënal bañ a dugg xale di école bàyyi fa ci mbedd muy football yëpp dina am gis nga programme bi programme gis ne dañuy jël xaar di ko dugal foo xamante ni gis nga programme programme bii ñu teg ni pour enseignement classe am pagaille classe fépp léegi foo dem bareetul abri provisoire bareetul ñu ngi koy éliminer ndànk-ndànk mais abri provisoire man moo ma gënal xale bi bañ a jàng. d'accord yéen waa LD ban taxawaay ngeen def ba corona bi commencé ba léegi lan nga ma mën a wax soxna Penda ci département Dakar bi nga xam ne yow yaa jiite lan ngeen fi def yéen ak lan mooy ci seen taxawaay. ci département Dakar. waaw euh, sama responsable euh, yi nga xam ne ñu ngi ci section yi ku ci nekk làmb nga sa poos defar sa ay masques su ma génnee sama portable léegi naa la may naa 600 masques man. ci cent masques ak cinq cent masques yu ma benn sama benn xarit sama càmmiñ Arouna Coumba Ndoffène Diouf may ma distribué ko jax dama eau de javel jënd naa eau de javel jënd gel boo demee sama buntu kër pôle raxasukaay nga fa ak samay mbokk yi nga xamante ne nag maa ngi leen di dimbale te du ma ko wax mm-hmm. mais yow loolu yow soxna Penda man LD laa ci département de Dakar ndax tey par exemple tey yéen si keesu LD gi génn ngeen fa jënd ay masque wala LD amul kees ñun suñu kees mën nañ ci bañ a génn ndax ñun dañu am militant yoo xam ne dañoo engagé wu li ñu am man li ma génn génn ma ko ci keesu LD dama koy génn ci sama poche. Macky nag lu mu leen jox. kan ci Macky. Macky mille milliards leen si. ah ñun waruñ ci sedd parce que ñun sedd bu ci seddee suñu militant yi rek baax na xam nga ñun suñu militant yi ñu ngi fu ne te ku nekk nee nañ la man fii Dakar nee naa ku nekk demal nga bokk ci comité de ciblage yi nga liggéey. ak préfet ak sa maire ak sous préfet ak sa maire ngeen bokk ci distribution bi xam nu muy demee na leer nañ ñi war a am nañu am te loolu def naa ko ci Dakar dix-neuf communes d'arrondissement Dakar yëpp. Mhm. au niveau national tamit suñu militants yi wax nañ leen ngeen dem bokk ci liggéey bi wàcc leen ngeen dem. ñi Sénégal yëpp mooy déglu fi ma nekk nii. Mhm. wàcce ngeen bokk ci comité de ciblage yi ne yëpp leer nañ bu kenn maguy bu ko kenn saax saaxee. ngeen surveiller ko ndax ñun wax dëgg yàlla. Euh, suñu militant yi dinañ am foofu. parti bi ngeen yoroon parti bi ngeen yoroon bu njëkk de LD gi ñu xamoon mooy LD taxaw dëgër këcc. LD taxaw dëgër këcc du ànd ak du ànd ak ñuy luubal. du ànd ak ñuy jël ñun ànd ñoo ànd ñoo kuy luubal ànd ñoo kenn luubalu fi ànd ñoo kuy luubal LD ba fi nekkoon nag ba léegi moo fi nekk lu ñu la wax du dañ luubaluñu duñu tappale duñu wax lu ñu xamul. du ngeen ànd ak te képp kuy liggéey réew mi dañuy ànd ak yow président Macky Sall dama koy sant di ko ndax mi ngi liggéey réew mi euh, euh, ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr maa ngi koy sant bu baax a baax a baax ndax gis na ñaar ñii dafa mel dañ ne leen yéen a yéen a fi indi corona ndax dañu sentir ñoom ñoo engagé ñoo war a feebar bi ñoo ko war a yenu xeex bi président Macky Sall mhm. dafa mel ne moom moo war a yenu xeex bi loolu la yaakaar Macky Sall lan fi def def ko boo xamul li fi def na kon moom booy ba ñu émission bi li fi def bari na Ah. li fi def bari na lool bari na. d' accord léegi euh, lan lañ mën a euh, jàpp tamit tey par exemple tey yéen ci seen euh, wala léegi tenir na ay réunion ndax corona bi. bañ a tenir démb ci mujj ba génne benn déclaration soutenir déclaration bi génne nañ ko démb. Mhm. ñun ñi ngi réunir xam nga dajaloo wu ñu toog di réunir mais ñi ngi réunir par virtu réunion virtuelle. kan ngeen si soutenir. président Macky Sall ci effort yi mu def. effort yi mu def ci corona bi duñ ko si soutenir ne ko jërëjëf ñu ngi leen sant di la ñaanal di la gërëm loolu la ñu def de. man ne soxna si wax dëgg yàlla waroon nga maa wax tuuti ci seen communiqué ba yan effort la Macky Sall def. communiqué bi su ma paree naa la ko balancé léegi liir su paree bi sama portable naa la ko balancé léegi nga liir yow askan wi euh, ñu bëree bari tey par exemple tey mën nañoo wax ne euh, jotaguñ ci ndimbali aide bi mille milliards boo xoolee. transport xam nga Abdou Abdou Khadre xam nga nit ñi li ñu bëgg moo mënul nekk population Sénégal ku nekk Macky Sall ñu jox la dépense la am lekkal loolu mënul nekk loolu moom ku kay xaar di nga gën a xase parce que mënul ne li mu mën ñëpp gis nañ ceeb bi ñëpp gis nañu diwlin bi ñëpp gis nañ ko ci dëkk yëpp département yëpp mairie yëpp commune yëpp am na léegi nag loolu ku mu doyul dara du la doy. d' accord mais am na commune yu bari yoo xam ne ceeb bi kese fa ñëw la sa des accès gu fa. léegi yéen waa léegi euh, soxna Penda est ce que tey considération bi président Macky Sall jox yeneen parti yi mu àndal ci coalition bi est ce que considération boobu jox na ko waa LD. xam man ci commencement bi ñun bi di ñëw LD ñëwuñu pour ñu ñu jox ay ndomba tànk. mais considération pour euh, déglu ma rek ñëwuñu coalition Benno Bokk Yaakaar pour ay ay prébande mais considération bu amuloon ba léegi ñun bàyyi nañu ko. daf ci considéré moo tax ñu nekk moom ba léegi. lan moo koy firnde ne am na considération jarul siiwal confirmé jarul siiwal man mii rek day naa ci exemple man mii toog fii rek doy naa ci exemple daf ñu considéré yi daf ñoo yëg ku ñu yëg la ku ñu fonk la. est-ce leen déglu. waaye bañ déglu. di boo boo ko wooyee boo ko téléphoné muuyu la boo ko yónnee message muuyu la boo attiré attention ci dara mu tontu la léegi lan lan mooy. considération boo waxee sa xalaat ci réew mi. boo waxee sa xalaat ci réew mi mu xool ba xam loolu mu kii na wala de mun a ànd ceeg yow. waaw ah, seen parti bi ñu bari am nañu si ñaxtu ñu pour ñu bàyyi leen xel ci ndax gis nañ Macky Sall ma ngi def waaw xam nga nag parti ak président de la république ñëpp a taxaw di di téléphoné di wax ak moom naan ko président lii ak président lële waaye président direction parti bi secrétaire bi LD nekk xam nañu ne Macky Sall considéré nañu loolu rek doy na d'accord léegi euh, bala ñuy jeexal euh, commune bu euh, Biscuiterie yi lan moo fay sa taxawaay ëllëg élection locale bu ñëwoon tey ndax candidat nga ah loolu wax ko jotagul élection locale xam nga ñun fi mu nekk nii suñu maire Doudou di Niass dafa génn àddina yàlla na xam sedd guy euh, ñu am ku ko remplacer ku ko remplacer tamit euh, maa ngi profité ci occasion bi jaale ko jabaram bi génn àddina fan yii rek yàlla na ko yàlla may xol bu mu ko muñee muy Mohamed Jibril Wade yàlla na yàlla seral ya xam guy te yàlla na ko yàlla may xol bu mu ko muñee donc euh, moo nekk maire bi actuellement day eggale mandat bi élection locale nag jotagul ma xam nu may taxawee. non war nga mën a <clears throat> war nga mën a xalaat kay yow am nga yéene ci commune boobu am nga fa yéene def dara au moins ndax yow yaa jiite LD ci département Dakar kay waroon ngaa wax sax na xanaa mairie bu Dakar mais commune kese laa la wax war nga. commune boobu maa ngi sama dix-septième année élu local foofu dix-septième année dont dix ans d'adjointe au maire xam naa commune bu baax a baax a baax waaye élection locale jotagul bu jotee dinaa ñëwaat fi wax la li may def. d' accord jërëjëf euh, honorable <laughs> député Soxna Penda Dieng. waaw du ma euh, jeexal nag te nag sant ma nag docteur yi ñuy ñaan ñun waa LD dañu bëgg sax Macky Sall ci turu LD dañu koy ñaan mu honoré médecin yi personnel médical bi. Mhm. docteurs yeeg professeurs yeeg chercheurs yëpp brancardiers yeeg ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp a taxaw. vraiment Sénégal gis nañu ne ñëpp a taxaw dëbb comme un taxaw xeex corona bi muy chef religieux yi di chef coutumier yi di su administration territoriale gis nga gouverneur yi préfet yi sous préfet ñëpp a ngi taxaw commissariat de police yi commissaire yi ñëpp a ngi taxaw police armée pompier gendarmerie ñëpp ngi taxaw ñëpp daa ngi taxaw pour xeex corona. Euh, kenn bëggul policiers yi de doon nañu wax ñoom 7000 xaw ma lañ leen jox. waaw lu ñu mën di jox bu ñu leen joxoon dara sax ñu liggéey ndax ay sénégalais lañu. 7000 du bu ñu leen joxoon 14 milliards sax bu ñu leen ko joxoon sax ñu liggéey. ñu jox leen sept milliards jox leen quatorze milliards mooy am billaay dafa tuuti li ñu leen jox. bu amee ah, dara du dara. li ñuy li ñuy liggéey li ñuy liggéey seen dëkk moo ëpp importance. loolu d'accord ban message euh, ñu ngay conseiller euh, askan bi pour ñu tàggoo ndax li ñu gis ci réew mi mooy euh, coronavirus ma ngi fii gën di law état bu Sénégal yoxamal na ba yoxamal fu dara nekkut askan wi di bàyyeeku ban conseil moom ngay jox. ñi lay ah, déglu ah li ma lay li may wax rek li may jeexalee mooy. Sénégal dañ xam ne léegi bal bee seen camp nañu respecter mesures barrières yi te moytu aar suñu bopp aar di ñu dëkkal te ku am sa yaram du tàng nga wax nañu numéro téléphone yooyu woote ñu bañ a stigmatisation bi tamit ñu bàyyi ko ku am corona ñu bañ laa indexé di la wane su ko defee ñi ko am sawar dem faju ji. Mhm. loolu daal laa bëgg ñu kii ko di euh, wax nit ñëpp. nañuy raxas seeni loxo te toog seeni kër dañ daan wax restez chez vous léegi soyez prudent donc loolu mooy virus bi demagul nañ ñaan yàlla nag mu dem nañ ko moytu nag ndax encore une fois virus bi du koy dox di dem nit ñi ñooy dox di ko yóbbu fi ñu fi muy dem. d'accord voilà nit ñee koy yóbbu fu mu dem nit ñee ko fa yóbbu. Mhm. ma jeexal di sant président de la république son excellence Macky Sall sant ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr remercier docteur yëpp personnel médical bi yëpp. Mhm. ak ñëpp daal ñëpp ñëpp ñëpp gouverneur yeeg. administration territoriale ak ministre gouvernement bi yëpp maa ngi leen remercier vraiment ak sénégalais yëpp ndax ñëpp taxaw nañ ci corona bi yow mi sax yaa ngi wax mais journaliste sax taxaw nañ ci ndax ñu ngi sensibiliser artistes suñu gannaaw ñëpp ngi ci ñëpp ngi ci wax ji ba nga xam ne euh, ñëpp dugg na seen bopp même xale yu ndaw yi sax boo duggee seen kër ñu ne la dama raxasu wala ñu ne la maman restez chez donc sensibilisation bi dugg na jërëjëf euh, soxna Penda yi moom la ñu invité woon tey mu bokk ci parti bi di LD jiite département ñoo ngi leen di sant bu baax a baax Abdou Khadre moo nekkoon ci micro bi Adama Diallo ci wàllu xarala gi ñu leen di jox dig daje samedi bi di ñëw jërë ngeen jëf